actu du jour ñu jukki leen li gën a fës ci biir euh, internet bi dañu koy doore rek euh, mbiru Ousmane euh, Sonko ginnaaw rek ci ab réunion rek bu ñu amaloon niki tey ci ba ji foofee ca l'Assemblée nationale bañ ca noppee nag ci la ñu daal di biral date bi nga xamante ni bii ci la ñuy dind mbalaanu kirlaayu kii di Ousmane Sonko mu di aljuma ji ñu mal bu ay 11 jotee rek ci lañ ko fas yéenee dindi mu di l'immunité parlementaire député bile di Ousmane Sonko ñu wéy ni ba tey ci affaire Ousmane. Sonko ñu gis ni rek kii di aji Sarr depuis rek bi yëf yi amee ba léegi kenn déggu ko fenn kenn gisu ko fenn waaye bu ñu sukkandikoo rek ci avocat am bile di maître El Hadj Diouf daal nañuy xamal ne kii di aji Sarr dina janow rek ak juge bi ndiki alxames bi ñu dëdmal bu ay 11h rek jote ñu fàttali rek ne viole répétitif ak menace de mort aji Adji rek daal di teg rek ci ndoddu leaderu Pastef bile di Ousmane Sonko ñu wéyandi ba tey rek ci affaire Ousmane Sonko ñu gis na nag kii di Aïssatou Diop Fall dafa daal di wax rek ne Ousmane Sonko daf ñoo bett lool ndax moom rek ibaadu la doon woote te ibaadu buñ ko waxee rek doo nuyu jigéen doo def dara loo xamante ni bii rek day dox ci koo xamante kul euh, sa soxna moom Ousmane Sonko nee na am na ñaari euh, soxna muy bàyyi rek xale bu ndaw rek boo xamante ne ni 21 ans rek la am mu di ko maase nee na daal loolu moom mbette rek la ci daal di amee moom Aïssatou Diop Fall rek jëm ci leader bile di Ousmane Sonko ba tey ci mbiru Ousmane Sonko gis na ki nga xamante ne bi moo di Mame Gor Diazaka ñëpp rek dañ doon posé wu question ne bi yëf yi amee ba tey dégguñu ko benn yoon rek mu daal di ci addu waaye Mame Gor Diazaka nag daal di nay wax rek ci benn interview bu mu seqoon rek ak suñuy naataango lam fa xam le rek mooy nee na moom yëf yi amu ci dara loo xamante ni bii rek leer na ko tànk rek Ousmane Sonko janoowut ak juge bi rek ba xam le ndax moo def wala déet wala Adji Sarr moo am dëggam déet bu boobaa boobaa rek ci la ciy daal di wax waaye jamono ji amagu ci dara loo xamante ni bii rek euh, leer na ko ba lu mu ci wax rek day daal di nuru fen wala dara moo tax moom rek ci noppi ba baa mu ci am lu leer naññi mu soog rek daal di yëy yàbbi ñu wéy ni ba tey rek ci affaire Mercy yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku rek jamono ji ci réewum euh, Sénégal yeneen nag révélation la ñu daal di am rek mu tukkee euh, ci Pape Ndiaye nekk journaliste foofee ca Walf Fadjri la xam ne rek nee benn chargé wu mission république di Macky Sall moom nag dañ ko accusé woon nag nee na lu gën a raw lii nga xamante ni bii rek teg nañ ko ci ndoddu Ousmane Sonko ndax nee na kookee dañ koo daal di jiñ ne dafa violé ba pare daal di rey benn xale bu jigéen boo xamante ni bii rek euh, mineur la woon waaye nee na nag yëf yooyee nag ba tey jii kenn xamul fan la mujjee enquête ba rek dañu ko daal di euh, fule moom Pape Ndiaye journaliste foofee ca Walfadjri moo ko daal di xamle muy wane ne rek ne affaire mœurs yàgg naa am file ci mim réew te boobee ba léegi waxuñu ko te ki defoon loolu rek nekkul kenn rek ku dul wu mission présidence de la république bu Macky Sall nee na moom moo defoon li ni mel boobee ba léegi rek yëf yi kenn yooyu ci yàb bi ñu àddu ci leneen affaire audio bi nga xamante ni bii rek ni ki démb ba tey ñu ngi koy waxtaane ci réseaux sociaux yi daal di dox ci diggante Clédor seen ak Guy Marius Sagna ak assan Diouf bañ tegoon leen loxo waaye rek journal bi daf ñoo xamal ne dinañ leen defeere ni ki tey ndax ci lañ war a daal di janoo rek ni ki tey jii rek ak procureur bi ba mu war a nag décider lan lay def rek ak ñoom mu sukkandikoo rek ci le soleil moo ñu ko daal di xamal pour fàttali rek ne ñooñee lañ leen jàppee rek nekku leen lu dul menace à l'ordre l'ordre public et acte de nature à troubler l'ordre public ñoom ñett ñooñee daal loolu la ñu rek teg ci seen ndodd ba jamono ji rek ñu wax yee ñu ngi ci division des investigations criminelles ñu wéyandi rek ci ñetti arrestation yi nga xamante ne bi ñu ko nemmeekoo rek démb ci Guy Marius Sagna ak Clédor Sène ak kii di Assane Diouf ñu gis rek ki nga xamante ni moo di Abdou Karim Gueye alliance Karim Xurum Xaax daal dina génnoon rek daal janoo ak taskatu xibaar ngir xamal rek niki tey jii ci àllarba ji ngir rek daal di dox rek doxum ñaxtu rek foofee rek ca place de l'obélisque ngir dictature bi nga xamante ni njiitum réewum Sénégal mi ngi koy doxee rek jamono jii waaye nag boobule manifestation préfet bu Ndakaaru di Alioune Badara Samb daf ko daal di rek bañ a ndaxte nee na rek jamono ji di jamonoy Covid 19 ñuy tere rek lépp loo xamante ni rek da di ab dajaloo ndaxte crise sanitaire bi ñuy dund rek jamono ji tax nag ba loolee nga xamante ni rek bëgg nañ ko mu di manifestation boobu la dañu ko daal di rek euh, dàq rek ndaxte rassemblement rek dañu koy daal di euh, tere tere googu ñuy tere rek lii di euh, rassemblement buñ sukkandikoo rek ci RFM mu ñu jox rek yooyu les xibaar muy xamle ne rek 4 avril bi nga xamante ni rek daan nañ ko célébrer ñu xam ne rek dañu ko daal di annuler ngir rek rassemblement bi nga xamante ni bii rek ñu ngi koy bañ rek ci mille réew ñu àddu ci leneen soxal wàllum société mu di couple boobee nga xamante ni bii ñëw nañ rek fekk leen ñu daal di faatu ci seen euh, biir nekk ma nga xewee woon rek foofee ca Pikine euh, tali bu bees mu di Mouhamed Kamal Diouf ak euh, Aïda Faye ñoom ñaar rek ñoo daal di faatu rek ni démb ci suba foofee ca Pikine tali bu bees waaye nag lañu ñu daal di xam rek jamono ji ci ay information rek daal di tukkee rek ci ëttu yëglekaay bii di Seneweb lam ñu xamal mooy di ni daal cuuraay saxaar su bëree bëri daal moo leen daal di faat ginnaaw rek ba saxaar sa rek di sërali rek ca biir néeg ba tax rek fenêtre ya daal di tëjee ko bunt ya amuñu benn yoon rek fu air daal di jaar loolee nag daal leen di fatt ba tax rek ñu daal di rek faatu ñu xamal ñu nekk ne jëkkër ji moom mi ngi juddu woon rek en 1970 soxna si nag en 1974 suñu borom rek daal di leen i moom waaye nag ba tey nangoo nañ rek ci ay kàddu rek ki nga xamante ni moo njëkkoon a nekk euh, borom këru soxna si rek di ayda lam ñu xama rek mooy nee na soxna Aïda nit ku baax la woon te moom la yàlla dogal ñu am ay bant ndax am nañu tolloog ñeenti doom la leen suñu borom rek euh, dénk mu di ko ñaanal rek euh, suñu borom xaare ko ci àddina yi gën a kawe moom nag lam xam ne moo di ndogal rek euh, moo daal di dikk nii rek la ko suñu borom tuddee woon nii la waxee woon rek ne nii la ñuy faatoo mu nekk nag loo xamante ni metti na lool lool xewee woon foofee rek ca Pikine tali bu bees dañu koy daal di jeexalee rek ak vidéo lu motif boobee nga xamante ni bii rek mi ngi yi euh, mu di Ndeye Ndiaye ya nekk nag fecckat euh, ci Sidi Diop ginnaaw rek ba mu jëlee rek vidéo intime boobule rek euh, daal di koy partagé ci story sinabam jamono ji rek ñu bëree bari ñu ngi koy partagante rek ci seeni téléphone waaye gis nañ rek ki nga xamante ni bii rek moo di Ndeye Gueye dafa di génn rek wax ci loolee nga xamante ni rek dal na doomam jile di Ndeye Ndiaye ndax nee na Ndeye Ndiaye yaay la ko daan wax daan na wax ne tamit Ndeye Gueye moo nekk référence rek ci milieu bi nga xamante ni bokk nañ ko mu di fecc ba ak ndey gi rek di ñaan ministre de l'intérieur mu di Antoine Félix Diome ngir ñu jël rek ay ci yi ndaxte képp koo xamante ni rek partagé ci nga euh, vidéo jàmbur boo xamante ne bii mën naa yàq rek euh, àddunaam moom ndey nag mi ngi ci ñaan rek ñu di ko topp ba xam rek ki def euh, li ni mel nee na lii rek dal Ndeye Ndiaye nekk na lu metti lool te moom yéenewu ko ko benn yoon te mi ngi koy mastaw bu baax a baax ba tax rek daal nee na képp ku leen ci mën a dimbali ñoom ñu jël bu baax a baax ndaxte lii nekk na loo xamante ni metti lool lii rek moo fi gënoon a fës ami internet yi di dajale doon ba ëllëg ak jàmm